Euh, mbokku Sénégal asalaamaaleykum euh, seen mbokk docteur Mansour Diouf euh, damay ñëw rek dafa am benn vidéo boo xam ni mu ngi circuler jamono yi boo xam ne dama ko defoon ci benn émission wu Mati trois pommes mu nekkoon ci mois de novembre deux mille vingt atum daaw la ma ca doon wax wuute ak position yi may wax jamono bii ñu toll ni loolu nag laa bëgg indi ay leeral parce ñi koy publier di ko partager dañ ci pour def li nga xamanteni ni xew léegi Sénégal ñu koy tuddé VAR lool nak dafa laaj ñu indi ci ay leeral jamono bobu muy novembre 2020, mille vingt situation Covid Sénégal ni mu meloon wouté lool ak li am tay wouté lool ak jamono bobu la amone réewu France Europe États-Unis ak fenen ci bi. Sénégal eu ay cas yu ndaw ci walu Covid bi cas nombre yu tout yu new jamono bobu ma defone ay proposition mané, stratégie bi may proposer moy que bi ginnaw mag ñi am 65 ans jëm kaw am ay li ñi wax comorbidité manam diabète tension cardiaque problème rein ak ñoñu lay gëna sonal di leen yóbbu réanimation di leen faat nañu jël stratégie bi concentré ko ci ñoñu xaaliss bi nañ ko jël def ko ci ñoñu jëndal leen ay masque jëndal leen ay gel di leen sensibiliser ci geste barrière seen garab yi nga xamante ni moy équilibrer seen fièvre yoyu ñu subventionné leen ko di leen ko jox ñuy faj seen diabète di faj seen tension ak yi demee noonu ndaw yi nga xamanteni a ni ay forme asymptomatique la ñuy def ak ay forme mineure nga xam Nous du leen teurel du leen lor ñu bayyi ni di jël di duggal ci hôtel yi di yakum xaalis loolu la waxoon Nous jël bi équipé ci yi buñ ko waru fait wax waxi vaccin ci Sénégal te bu ngeen dégglo bu baax vidéo bi ñi partagé bi Mati waxé loolu dama ko Sénégal la parce que daf ma doon laaj Sénégal yi nek bitim parce que situation yi beaucoup parce que bobo ngi bañ ku bitim ah, docteur Diouf kan du ñakku ay mbokam du ñakku diglewul kenn ñak lool la doon bañ dafal bëgg situation bobo amon Sénégal jamono vous ak situation bi c'est totalement différent jamono bobu ma won sama bat mané man wax vaccination kenn waru koo wax fii ci Sénégal jamono boobu